alhamdulilahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursaliin nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmain amma baadu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaar ci koor gi di leen ndokkeel di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen lëm ubbil ñu ci ay bunti yërmandeem ubbil ñu ci ay bunti xéewalam ci diine ci xéewal sutura ak teraanga yàlla ñu ko yàlla defal ginnaaw loolu dañuy wax ne bokk na ci yërmande yi yàlla ji yàlla am ci jaamam ñi di yërmande ju yaatu lool boo ko dee natt di ko seetlu mooy ne amul lu àdduna di dellu ci seen allaaxira li ngay gis ba gis sax mooy ne seen àdduna ak seen allaaxira ñoom jaam ñi munta yëwan munta baax li feeg dëppale ko ak li nga xam suñu borom subhanahu wa taala daf ne ko demal dinaa yabal samay yonent ñu ñëw ci yéen jaam ñi di leen waar di leen woo képp koo xamante ni topp na sama yonent boo xam ne maa ko yónni ci yéen kooku falaa yudillu wala garantiral ko ñaari mbir yooyu waaye mu wax ne képp ku waroo ak loolu mu jox yeneen lu mu gën a góorlu ci loolu bu tax ñuy wax ay observation la doon def ci picc yi naaw ci garab yi ak changement ak transformation yi am selon seen alimentation ak bërëb yi nga xam ne fa la ñuy dund ak yu mel noonu mu wax ci loolu ne kon li muy tekki mooy mbindee fii dañoo dañoo dañoo transformé wu jóge ci ay espèces dem ci ay espèces ba ak si fi ñu ak si nii kon nature bi moo fi nekk leneen nekku fi lu dul loolu ñun doomu aadama nature bi moo ñu def li ñu doon moo ñu jële ci lu kenn xamul di ñu transformé bañ mel niñ mel mu jox ñu capacité yi ñu am yépp aptitude yi ñu am yépp ba ñu mel nii mu organiser ñu suñu dund nañu léegi toog leen ngeen baax na yam na fii nature mënut a organiser loolu nature mënut a jël espèces yi différencier leen kenn ku nekk mu jox la say particularité ak say spécificité jox la sa façon dund yamale la fam la war a yamale lenn lu nekk ci àdduna bi organisé wu di dox benn benn benn millimètre wala tarfata ay ni du ci déréglé wu ci àdduna bi ni muy fonctionné woo amul benn nature bu mun a réglé loolu amul musul am xel xel képp bu mucc ay xam nañu loolu mënul nekk ñu jël loolu gëm ko ndax seen intérêt bi ci nekk mooy mën nañ cee weddiloo nit ñi yàlla ñu def ko sous forme de science imposé ko nit ñi ndax dañuy wax ne mooy la religion du vingtième vingt et unième siècle ñu jël ko imposer ko nit ñi loo leen ci yàlla ba tax na bu fekkee seetlu nga suñu société yooyu ñuy tuddee ay société soi-disant moderne li nga xamante ne mooy ay jikko ci nga xam ne ci la doomu aadama di baaxee ci lay yëkkatikoo di ay valeur humaine wala ay vertu sax laay wax nga xam ne ci diine yi yàlla daan yebal yonent yi ñoo daan ñëw di ko jàngal nit ñi yonent bi alayhi salatu wasalam bi mu ñëwee ne innama buistu li utammima makaarima al axlaaq yàlla daf ma yebal ngir ma ñëw mottali mission boobu yonent yi tàmbali woon te àggul mooy yar doomu aadama defar bakkanam ba ak mbaax nekk ci moom ay valeur nekk ci moom loolu sàmmal ko teraangam bi ko yàlla def ak gënal gi ko yàlla yëkkati ndax ci rek la ko mën a sàmmee mënu koo sàmmee ci loolu noonu dañ koo rey léegi yitte rek li nga xamante ni bi moom mooy bànneexu àdduna ak la ca jëm ci loolu rek lañ yitteel nit ñi jël seen bëgg-bëgg lépp jëmale ko ci loolu ci loolu la doomu aadama yi tàmbalee am benn vide bu nekk ci ñoom boo xam ne ak déséquilibre bu am ci ñoom mooy ne seen bakkan yi amul lu ko suuxat amul lu ko alimenté loolu noonu jur benn souffrance boo xamante ni bu sedd la boo xam ne nit ñi duñ ci bàyyi xel ndax du feeñ ci biti loolu nit ñi di ci mbugal seen bopp mbugal mu méttee méttee métti seen dund di yàqu donte lu ne dajale nañ ko léegi ci àdduna bi ci wàllu am am ci wàllu matériel ci lu ñuy def ci ay réalisation mais mbir mi dëgg dëgg nekkul foofu loolu moo tax bu fekkente ni nit ki nga xamante ni dafa seetlu bu baax a baax suñu nekk nii suñu societé yi ak dégradation yi fiy am ak mettik dund gi fi nekk ak jafe-jafe yi ñuy jànkoonte rek li ñuy jàmbat ci suñu biir ci naqarik dund ak li ñu metti ci suñu mbir yépp bu fekkente ni seetlu nga ko dëgg dëgg dinga gis ne mbir yi koy waral di ko favoriser di tax muy am di ko sabab li ci ëpp dafay dellu ci yàquk suñuy jikko jikko yi nga xam ne moo nekk war a nekk su suñuy bàkkan di ñu def ay nit yoo xamante ne dañuy am ay qualité ci lépp mbir ba kenn ku nekk ci ñun ci biir société bi ñu mën fee dund dundin boo xamante ni duñu ko naqaral waaye dinañ ko neexal duñu ko yàq waaye dinañ ko yëwanal dinañ ko baaxal loolu bu fekkente ni yàqu na pour dund mën a nekk lu teey lu neex ci société dina jafe ndax boo seetloo di nga gis ne li nga xamante ni bi moom mooy jikko mooy laltaay bi nga xamante ni suñu dund gi ñuy dund muy le vivre ensemble te loolu mooy notion wu société mi ngi tegu ci kaw jikko bu fekkente ni jikko yi yàqu na vivre ensemble boobu mooy dund boobu ak dund boobu ñuy dund ak xajoo googu ñuy xajoo ci biir société bi dafay yàqu ndax dañuy lorante bu fekkente ni jikko yi yëwan na dund googu dafay nekk lu yëwan moo tax suñu borom subhanahu wa taala wax ne zahara al fasadu fil barri wal ne yàqute gi feeñ ci seen dund yépp yéen doomu aadama yi yéen a ko fàgg yàqute gi ngeen di jàmbat ci moo xam pollution yeeg àdduna bi ni mu yàqoog li ngeen di jàmbat ci géej géeg li ngeen di jàmbat ci lépp yéen a ko def waaye tamit mettik dund gi ngeen di jànkonteel ci seen biir société yi ci rayante bi mbugalante bi sonalante bi fitnaalante bi dund gu metti geeg lépp yéen la xoolaat leen seen nekkin jox naa leen ci àdduna lu leen doy sëkk loo xam ne seen dund waroon na cee mën a baaxe yéen a amul taxawaay bi ngeen waroon a am ci seen dundin ngir yewanal ko pour seen dund mën a yewan te nag inna allaha laa yugayiru ma bi qawmin xata yugayiru ma bi anfusihim bu ngeen soppiwul ni ngeen mel ak li nekk ci yéen yàlla du leen soppil seen melokaan kon yéen yéen ay góor góorlu ci loolu loolu suñu borom subhanahu wa taala xamal ñu ko loolu moom moo tax importance su kenn ku nekk ci ñun sa melokaan ak sa jikko yooyu ak say doxalin ci baaxal ci yëwanal suñu dund ak ñàkk koo baaxal moo tax lislaam jox solo loolu jikko ak tit kenn ku nekk ci ñun li nga xamante ni bi mooy jóge ci yow di jëm ci ña ca des dem ci bani jullit bi ngir sa ngëm nekk ngëm gu mat ngëm gu baax da ngay fexe ba say loraange ci say ci sa loxo wala ci sa làmmiñ nga téye ko ba doo ko jëmale ci nit ñi yonent bi alayhi salaatu wa salaam mësa toog ci jàkka ji ñu jékki-jékki dégg ko mu naan waat naa ci yàlla ne du gëm waxul sax ne du gëm daf ne wallaahi la wax mu waat moom bu waxoon te waatul ñépp xam ne li muy wax lu lu lu dëgg la te itam wax ju feddli ko la waaye bu bu jekkee jekki di wax la muy wax mu cay waat di ci tudd yàlla naan wallaahi laa yu'min waat naa ci yàlla ni du gëm waat naa ci yàlla ni du gëm waat naa ci yàlla ni du gëm nekkul ku gëm mukk ngëm gi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci moom ñu ne ko kookan la yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne koo xamante ni ñi mu bokkal dëkk du ñu mucc ci ayu ak loraangay loxoom wala làmmiñam est-ce que jullit ñi dinañ xalaat ci loolu jullit bu nekk ci ñun bëgg nañu melal ko melokaanu ngëm yàlla li muy def ci lu baax yàlla nangul ko ko bu la yàlla ne boo bëggee ma nangul la sa diine sa diine ñoŋ sa diine baax fexeel ba bul lor ab jullit ci sa làmmiñ bul ko lor ci sa loxo est-ce que loolu ñu ngi ciy bàyyi xel yaakaar naa bu kenn ku nekk ci ñun xeroon ci loolu lu bari ci lu ñuy joytu ci ay jafe-jafe yu ñuy dund dina wàññeeku walla mu deñ ñu gis ne weeru koor bi ñu nekk li ñuy wax noonu lay taay la bu ñu bëgg a dellu si waat lëkkale ko ak li ñuy weeru koor gi ñu nekk te muy jeex pour ñu am lu ñu lu ñu attirer attention yi ci ne lii rek la suñuy problème yàlla mi ngi ñu ko jox bis bu nekk ñu koy gis mais ñun ñoo ko jëfandikoowul ñoo ko jariñoowul ni ñu ko war a jariñoo suñu problème lépp lu ñuy jàmbat rek lu koy solutionné mi ngi suñu diine ji mais est-ce que ñi ngi koy jariñoo est-ce que ñi ngi ciy def ndànk di ko seetlu di xool bu ñu seetloo weeru koor gi nga xam ne moom la ñu yàlla digal ne nañ ko woor bu weer wi ñëwee école la boo xam ne dañ ciy tàggatu di ci suivre formation mu lay forme ci mbaax di la former ci lu bari waaye dafa am ñaari qualité yu muy def ci nit yu am solo yoo xam ne bu lu mu gën a nekk ci nit ñi seen dund di gën a baax seen dund di gën a yëwan ñaari qualité yooyu mooy dëggu ak muñ muñ mën a mën a dékku am persévérance beneen bi ci des mooy nekk ku véridique ku dëggu ñaar yooyu woor da koy da koy def ci nit da koy yar ci nit te loolu bu fekkee dafa nekk ci nit da gis day yëwanal dundam ba noppi nit li muy jariñu ci moom kiy jëflanteek moom wala mu dëkk ak moom li ngay jariñu ci nit ko am qualité yooyu moo ëpp lu ngay séentu ci moom ci loraange kon bu fekkonte ni ñun jullit ñi nga xam ne at mu jot weeru koor gi ñëw ñu ciy nekk di woor ñi ngi koy wooree ni ñu ko yàlla dégalee ba ñuy wax naan ñu laallakum tattaquun ba muy impacté si suñu bakkan yi di def ci ñun njariñ loolu kon lu bari doon na soppeeku ci suñu nekkin ndax jafe-jafe yi ci ñun dong la jóge ci ñun lay dellu ci ñun la jóge ñun ñooy lorante ñun ñooy mbugalante ñun ñooy sonalante bu fekkonte ni jullit bi wor nekkul ku dëggu ci digganteem ak yàlla du gis lekk bu neex loolu mu romb ko fi gis naan bu sedd neex loolu mu bàyyi ko fi xëy suba ba ngoon dugalul lenn ci loolu ci biir gémmiñam te xam na ni kenn mënu koo contrôler ku dul yàlla loolu ku dëgguwul du ko def ndax mën nga wan nit ñi ne yaa ngi wor te woruloo ndax woor dafa sew woor jëflante bu làqu la jëflante bu nëbbu la moo tax yàlla ne jëfu doomu aadama yépp moo ko moom ba mu des koor koor man maa ko moom man rek lañ koy defal kon maa koy fayal sama bopp sew-sew boobu ci nekk dafa mel ne yàlla da lay éprouver ci sa dëggu sa diggante ak moom sant la jëf boo xam ne xam na ni kenn mënu koo xam ci nit ñi ku dul yàlla rek moo ko mën a xam nga koy def di ko rafetal di génn ci naaj bi dox déshydraté wu mar lool dugg ci néeg bi fekk fa ndox mu sedd doo ko laal doo ko jege ndax xam nga ni gisub yàlla mi ngi ci yow xam-xamu yàlla mi ngi ànd ak yow kon loolu dëggu boobu bu fekkee dafa nekk ci diggante jullit bi ak boroomam dafa war a feeñ ci diggante jullit bi ak ay moroomam ndax boo dëggoo sa digganteeg yàlla dëgg googu daf laa war a topp ba nga jëfe ko ci sa digganteeg say moroom mi jàmm ndax loolu dafa bokk ci dëggu sa digganteeg yàlla ki dëggu day dëggu ni may dëggoo ci jaamu yàlla gi may def ba duma ci tricher ci koor gi ma yàlla woo woorloo noonu laay dëggoo tamit ci su ma demee ci marché bi di jaay ak jënd ak ak a jëflante liggéey dem ci entreprise yeeg fu ma mën a dem ndax même menn yàlla moomu di xoo di ma xool di xam sama koor googu ndax respecté naa ko wala déet yàlla moomu bëtam boobu moo may xool ba léegi tamit ci jëflante yi may jëflanteeg jaamam yi ni ma ko ragalee mooy ci koor gi noonu laa koy moytandikoo mooy itam ci jëflante yi muy jëflanteeg nit ñi bu boobaa kooku dina nekk ku sàmm boppam dina nekk ku xool boppam ci li muy def ci digganteem ak yàlla kon koor daf lay yar ci sens boobu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax suñu borom nañu yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla te bokk ci ñi dëggu ragal yàlla te bokk ci ñi nga xam ne dañuy dëggu muy qualité bu am solo boo xamante ni bu fekkente ni mu ngi ci nit nga xam ne du wax lu amul du def lu lu dul noonu loolu dafay feeñ tamit ci ne nit la koo xamante ni du tricher. comme ni ñu ko waxee ci koor gi du njuuj njaaj du wuruj du wor du naxe ku dëggu du def loolu te loolu léegi tey ci suñu jamono ji ay qualité la yoo xam ne nit ñi dañ koy bàkkoo ko calculer loolu bu fekkente ni moom moo nekk lu ñuy animé ñu koy dund naka la suñuy dund mën a nekkee dund bu baax naka la ñu mën a amee li ñu bëgg mënul nekk nekk ñaareelu jikko bi ñaareelu qualité bi moom mooy muñ mën a dékku loolu mooy magasin boo xam ne du jeex mooy may goo xamante ni amul fu mu yem yonent bi alayhi salatu wasallam nee na yàlla joxul jàmm yàlla mayul jaam lu gën gën a yaatu gën a baax muñ muñ nit mën na ñàkk lu ne ci àdduna mais bu yàlla defee ci moom qualité boobu ñàkkatul dara dara dara dara mooy nekk ku mën a am sago ku mën a am maîtrise ci sa bopp mën a dékku ki nga xamante ni bi mooy kii muñ day góor góorlu ci not boppam not bakkanam ba teg ko ci kaw li yàlla bëgg mu ne ci jaamu yàlla yi ñuy def ci lu baax di moytandiku itam yi yàlla subhanahu wa taala tere ñu ñu ne ca ci ñaawteef ku muñul doo ko def ndax day nekk mbir yoo xamante ni day laaj nga bëre ak sa bakkan ngir mun koo yar ci loolu mu ne ci loolu wa illaa bu ko nit ki deful ci ay jafe-jafe rek lay dund nattu yi ñu yàlla di teg ci jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel li tax nit ki mën koo nangu ak xol bu tàlli mooy jikko muñ nekk ci moom waaye bu fekkente ni jikko muñ nekku fi lu laal nit ki lu tuuti rek mu jàpp ne lii waru ko woon dal da ngay gis koo xamante ni li mu yor bu fekkonte ni jikko bu mel noonu qualité bu mel noonu mu ngi ci moom li mu am ci wàllu àddunaam fu mu toll ci sant yàlla lay dëkk waaye benn mbir bu ndaw ci nekkoon par exemple gouverneur nekkoon ministre wala nekkoon nangam ñu destiné ko ci fonction am day mel ne àddunaam dafa tukki bu fekkente ni nit ki noonu la mel muñ boobu nekkul ci moom mënut a supporter dara léegi lan lay jur li muy jur mooy nit ki mujj mel ne bàyyi ma boo xamante ni bakkanam da koo noot tiital ko muy kër kër yi fu mu toll yitteem mooy lan faj ay bànneexi biiram ak bànneexi pëyam moom àddunaam yépp ci lu mu ko résumé mooy lu mu lekk lu mu naan ak caaxaan nit ku mel noonu day daal di mujj nekk nit ku doyadi nit ku suufe koo xam ne ku jëflanteek moom mu lor la nekk nit ku égoïste koo xam ne boppam rek bu ñëpp doon loru moom mbiram di baax yoonam newu ci léegi nit ñu mel noonu bu fekkente ne dañoo bari cib société jafe-jafe faw dafay bari ay problème faw dafay bari koor gi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala faratal na ko ci ñun dafa nekk mbir moo xam ne dafay yar jaam bi ci ñaari qualité yooyu daf koy yar ci mu not bakkanam ba mën koo yamale fa yàlla bëgg mu yem fa ci loo xam ne kenn xamul ku dul yàlla waaye daf koy yar tamit ci mu dëggu ci mbir moo xam ne bakkan bi mi ngi koy taxawee di ko jëf te kenn mënu koo contrôler kenn xamu ko ku dul yàlla subhanahu wa taala waaye lii rek naqari ci xol mooy bu fekkee seetlu nga suñu woorin ñun jullitu tey da ngay gis ne koor la goo xam ne moo xam koor la wala yeneen jëf yi julli yeeg julli li ci yàlla wax lépp ci li ci nekk ci liy fóot bakkan ak liy defar nit lu tax boobu ba léegi jàkka yi bëri na fu ñu toll saa bu ñu dee nit ñee ngi dem di julli ji waaye ñoo ñu di julli ñoom itam ngay gis seeni doxalin ci mbedd mi ñoo ñu di ñëw ci jàkka ji moom mooy tax ñuy jël suñu dàll yi di ko teg ci biir ndax bañ ñu jël ko ci biti kon li muy tekki mooy li ñu indi ci jàkka ji defaruñu te yàlla li mu waxoon mooy inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli day tere nit ki ay ñaawteef day nit tere nit ki lépp lu bon lan moo tax julli munu munu ñëw fóot defar suñuy bàkkan defar suñu jëkko ndax julli bi la marto bi nit ki yor boo jëlee xale bu ndaw nga jox ko marto muy dóor poto bi mënu koo yëngal waaye boo jëlee ponkal waxambaane boo xamante ne am na kàttan am doole nga jox ko même marto bi bu ko dóoree léegi poto bi wadd ndax doole ji ci loxo bi lay jóge te benn marto la kon benn jëf bi la muy benn julli bi mais impact bi muy am ci nit ki day dellu léeg-léeg ci jëfin bi ci moom mi koy def ak na mu koy defee loolu mooy suñu problème koor gi nga xam ne yàlla farataal na ko suñun mook yeneen jaamu yàlla yu ni mel dafa dem ba nekk benn routine bu installé wu bu ñuy def mais la nekk ci ginnaaw dëgg ci ay sens yu ñu war a bàyyi xel yi nga xam ne moom la ñu war a jéem a fexe jariñu ko ci mu nekk ay qualité yu mu ñuy yokk ak lu muy def ci ñun ñu bari ci ñun duñ ci bàyyi xel bu koor gi duggee ñi ngi ñi ngi nekk di focaliser wu ci yeneen yoo xam ne seytaane moom lay ñëw daal di ñuy distraire ñu nekk ci yooyu di ci xalaat ba koor gi jeex mais li li essence bi nga xam ne moo taxoon dëgg-dëgg ñu farataal koor gi ñu bari si ñun duñ ci bàyyi xel ci jikko yi nga xam ne ak mat gi nga xam ne war na ko def ci ñun ak yar bi mu ñu war a yar ndax yàlla moom bi mu koy farataal laalakum tattaqun rek la wax ngeen jële ci ragal yàlla jële ci ak mat jële ci ak yokku mais loolu ñu bëri si ñun duñ duñ ci xalaat weeru koor gaa ngi jeex nga taxaw def inventaire xool koor gi bi mu ñëwee léegi mi ngi dem lan la ma yokk lan la changé ci man lan laa doon remarqué ci man loo xam ne neexuma ci ay doxalin yoo xam ne xam naa ne baaxul yu ma mënutoon bàyyi te koor gi dimbali na ma ba bàyyi ko lu bari su ñun duñ ci bàyyi xel moo tax mu war ñuy fàttaliwaat sens yooyu nga xam ne koor gi am na ko ci ne lu bari ci li ñuy jàmbat ci suñuy mbir naam mën nañoo jóg sabablu war nañoo jóg sabablu ngir dindi ko mais léeg-léeg ay raccourci la ñuy jël te effort bi ñu a def dëgg dëgg dëgg ngir suñu dund yëwan duñ ko def ndax effort bi gën a gaaw ci yëwénal suñu dund mooy ñu soppeeku mel ni ñu war a mel bu ñu soppeekoo góorgóorlu ci ñun suñu bopp mel ni ñu war a mel léegi suñu dund soppeeku mais bu fekkente ni soppeeku bi nanguwul am coow li dina bari de xëy na mën nañoo góorgóorlu am lu ñu wàññi ci feebar ci problème bi de mais lépp du fi jóge ndax li koy sabab ba léegi mi ngi fi bu tuyoo bi tojee fii ci koñ bi ngay daw di jël ay suuf di xëpp ak jël ay mool di di di ah di nga xëy na soppi yoon bi ndox mi waroon a jaar ak yooyu de waaye ndox mi dina continuer ba léegi di ball li nga war a def mooy xool fa taux bi bënnee nga dem foofu fatt ko ngir ndox mi arrêté waaye bu ndox mi arrêté wul moom dina continuer di ball loolu nag mooy suñuy problème ñun yàlla nañ yàlla doole defal tawfiq rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laxirati xasana wa qina adaba annar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم وفقنا للبر والتقوى وخذ بنواصينا لما تحب وترضى اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا allahuma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain qumu ila salatikum yarhamakum allah